rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu euh, bokki jullit yi bokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu di indi fii yëgle boo xam ne ñu ngi koy def ci turu sëriñ Mouhamadou Xaban Mbacke ibnu Cheikh Mouhamadou Fadal mi nga xam ne moom la Cheikh Mouhamadou Muntaxa di taxawuloo lépp lu aju ci wàllu alxuraan ak daare alxuraan yi xam nga ni ndigal li nga xam ne sëriñ bi joxe na ko mu jëm ci njàngum xaside yi ci yëkkati bi ak durus bi loolu itam dafay ànd ak njàngoom alxuraan mi nga xamante ni naka jekk ñoo mës ci ànd te mu jiitu lépp loolu nag sëriñ Mamadou di ko fàttali ñi nga xamante ni ñooy yor daare alxuraan yi ak jàkk yi ak mboolem ñi nga xam ne ndigal lool daan nañ ci taxaw ne ni ko sëriñ bi diglee li dale dibeer fukki fan ak juróom-ñaar ba dibeer ji dellusi si bu ko defee altine di ñaar fukki fan ak juróom ci weeru tabaski wi dëppoo itam ñaar fukki fan ak juróom mooy doon bisub tëjte ba ku ne xam na ni njàngum alxuraan ak xaside yi ñoo mës di ànd loole nag mi ngi koy fàttali bu baax di fàttali ndigal li ci mboolem ñi nga xamante ni bu mësaan a jóg te Cheikh Mahoudou Mountakha joxe ko ñu ànd ko ak moom ci fànn yëpp di leen fàttali it ne kenn ku ci nekk fa nga nekk ci sa barab foofee ngay defee ndigal li muy njàngum alxuraan moo xam ne day ànd ak njàngum xasida muy sant ñëpp di leen gërëm te fas yéene ànd ak ñoom ci ndigal li ni ko Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké digle wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa